voilà salaamaaleykum mbokk gi ngi réew ñoo ngi leen di nuyu di leen yëgal ni nag le candidat de la coalition Walu Sénégal les candidats de Walu Sénégal di Mor Diouf di Mor le maire de Mboss di docteur Ismaïla Diallo di madame la professeure Anta Sarr dama ne ñii ñooy candidat département Guinguinéo yéen waa Guinguinéo ñoo ngi leen di nuyu di leen yëgal ni intercoalition Yewwi Wallu ay li na jaajëf les trois candidats du département de Guinguinéo ñu voté leen ñu gagné contre un seul candidat de Benno Bokk Yaakaar ànd ak Adja Daba Diouf di candidat liste nationale Guinguinéo mbokk département de new dafa am lo xamne mo ñu tax jóg dañu am ay élections législatives yo xamne dañ koy def muy le 31 juillet 2022 département bi nak coalition bi nga xamne coalition Wallu la grande coalition Wallu Sénégal ak la coalition yé doomu new ak ñett doomu département bi bu nit rappeler liste bi nga xam ne grande coalition wàllu Sénégal ak Yewwi Askan Wi bu ñu wootelee liste boobu bu ñu yàlla mayee ndam dañuy am ñetti député ci département de Guinguinéo maa la ko wax te loolu nag dafa am importance benn député defe naa ne lu mën a liggéey ñetti député moo ko mën a moo ko ëpp doole te député la te le député sortant amul dara loo xam ne gis nañ ko mu def ko ci Guinguinéo mi nga xam ne mooy chef lieu de département mais aussi ci biir département bi kon yaakaar naa ne changement dafa war a am il faut changer il faut changer pacifiquement pour changer nag nit ñi dañuy woteel wote liste coalition Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal loolu daal mooy li xam ne moom lañ leen di wax. Guinguinéo dafa nara a am sens. am ay député yu bari bu dee wooteel nañ dëgg la. Ablaye Wade ci liste nationale. mu ni Daba Diouf xam naa yow. sa njàmbarte. xam naa li ngay daj ci askan wi. xam naa li tax waa Guinguinéo bëgg la. sa ngor ak sa constance. moo tax foo jublu waa Guinguinéo jublu fa. kon yow Daba Diouf. man Ablaye Wade bu ma jiitoo yow laay teg sama gannaaw. ndeysaan kooku damaa ne foofa ca liste nationale topp ca gannaaw Ablaye Wade lu lu ma sàmm beneen bi ci topp mooy Yewwi ak Wallu intercoalition. biñ ñuy xeex dañ ñu titulaire yi duñ dem suppléants yi ñooy dem. yi nag ñoo na a gagné majorité bi nga xam ni moom la waa Bennoo di laaj te ñoom tubaarkàlla xam nañ ni ren moom. Yewwi ak Wallu intercoalition boobu ñoom ñoom la réew mi waxal ñoom la askan wi bëgg ñoom it la askan wi woteel te muy dëgg looloo tax nag ñu ni nañ jóg wax ak askan wi xam ni am na ay occasion yoo xam ni kenn du ko raté occasion bi ñu bañ koo raté mooy ñu woteel intercoalition Yewwi ak Wallu Sénégal pour ku mel ni sur la liste des en 17e position docteur Ismaël Diallo Diall son Anta Sarr Sur le député département ñu a ko en masse di le maire de Moss. l'ingénieur l'homme de valeur un homme de valeur pour le département l'histoire retiendra que dans l'histoire politique pour Benoît scrutin a na député sax

le docteur Ismaïla Diallo, suppléant sur la liste nationale, à la 17e position, maintenant nous faisons fal Adja Daba Diouf bi nga xam ne Ablaye Wade moo ne bu ma de Daba Diouf ay top, sama gannaaw moom ngeen gis sur la liste nationale. kon nag dans l'histoire politique de Guinguinéo Guinguinéo ren bu nu Yalla yàlla def le département Guinguinéo se retrouvera avec trois députés loo xam ne histoire Nous ko pouvons pas nag bu fekkee ne da nga de fal pour mu taxawal ah. juróom ñaari at mu taxawal la gisoo dara. Ah. damaa defe ne boo amee pour la am fayda. dëkk boo dem boo ko laajtee ne xamuñu ko. amul dara loo xam dëkk boo dem. waaw boo ne ndax xam ngeen seen député ñu ne déedéet ñun xamuñu. man de doomu géej néew ci ñu ko pël laa bokk taxaw ko. maa la ko wax. te ni ma ko ñàkkee xam. laa xam ne ñeneen xamuñu ko. dëgg la. ñu bëgg nañ ñu jàppale ñu. pour ñu am. kontaan nañ xamu leen ko de majorité mu tara dégg jigéen ñi nee nañ xamuñu ko de xamuñu ko ah wallaay ndeysaan nit na boo ko jiitalee ta xamoo ko mais da nga koy dindi waaw da changé il maa la ko wax changement bi nag mhm. ñoo ko a defal suñ bopp ni ñu koy defee mooy buñ ko wootee du jàll waaw buñ ko wootee leen rek mën naa jàll eh, on avance on avance waaw nit nañ si wallaay maa la ko nit nag bu sonnee ah. ñu ne la yoon yi da ngay fas yéene troisième mandat ñu ne déet nee na da ngay def troisième mandat waaw ak ni dund gi seere te yow waroo bokk ñu ne suñu gone yaa ngi yàqu waaw il faut criminaliser l'homosexualité am ngeen xàmmee ngeen liste bii Abdoulaye Wade ne dugub mboq bi ne fi boo demee Kaolack yeewee fan ne dëgg la walloog yeewi ñëpp yeewi la ñuy wote boo ñëwee ngin ngi neew ah. walloog yeewi yëpp wala la lañuy watal ci lu dama ne dama ne ngir ngi neew Sénégal gépp xam nañ ni waaw dund gi seer na lool nit ñi sonn nañu saako ceeb bi daan jar ñaari junne juróom-benn téeméer xaw juróom-ñaar mu ngi ci ñeenti junne yu manqué ñeenti téeméer cher na lool dama ne loolu buñ ko bëggee changé dañuy voter opposition bi nga xam ni ñoom ñoo bëgg a changé assemblée ah. Mourtala loolu laa gis. Mourtala dama ni. waaw. Serigne su baax seeg nit ñu baax sépp dañoo signé ne. waaw Macky Sall dimbale ñu nga criminaliser ñu. ci assemblée nationale. Mhm. l'homosexualité mu lànk tëdd. loolu mooy gone yi lu leen neex def leen kum neex doon góor kum neex doon jigéen. xam nga ne loolu xam nga ne loolu musiba la ci réew. waaw kooku nag. ñooy liggéey defuñ dara ci hôpital yi. déedéet buñ leen ko jiiñ hôpital yi ñoo yàqu. Mhm. kon nag dama ne santé ak éducation. Mhm. bu ñu nërmeelee ci réew. dund ga seer gone yee commencé yàqu dégg nga ñu ne da ngay def yaa ne woon doo def troisième mandat ne da nga koy def dama ne réew mi dañuy taxaw temm nag bëgg a changer suñu assemblée bi jëlaat loi yi bu baax a baax kon nag na ñëpp jóg dama ne na ñëpp jóg yëf yi xeexu kenn xeexu dañoo bëgg a changer assemblée national dañoo Mandiaye Kébé mii député département bi lañ bëgg a génne ci département bi. waaw foo dem ñu ne xamul. xama laaj bu ne xamul. nit nag bu la amalul njëriñ da koy génne. très bien. Mandiaye Kébé la ñu bëgg a changé ci boppu département bi. remplacé ko. remplacé ko ak Modou Dieng Diop. mu talaa sama boy yëpp intercoalition yooyu wàllu la. nañ ko remplacé ak Modou Dieng Diop. booy yee toog ta garab ga yëpp intercoalition yooyu wàllu la ñuy réew mi yeewu nag nit ñi sonu kilo gerte 1600. ay dëgg yee nga ne. xoolal ñii ñëpp gerte. coalition yooyu walu la. billaay day wala mala pa ñi ñëpp. ta Cheikh jigéen ñi dañu son dundu gee seer te métti. ta Cheikh. ma ngi sonal na nit ñi. Cheikh. waaw. mo tala dafa am lu am solo. waaw garab gi nak waaw. moy c'est l'ombre des sages. ndaysan ñii. waaw moy retraité yi salle di 15 pour cent te gisaguñ ko. bien sûr. wa sama waa ji jeng de. waaw jeng de nee na ma wàcc waaye jeng xamane du ma wàcc de. Cheikh. jeng dal waaw. garab gi nga wax. wa garab gi. dafa am ko xamné ne. waaw. daf ci tok mu ngok service ak publicum wallahi mala ko wax. un homme de loi. ndaysan liggéeyal rewam ba ñew tok gendarme en retraite. gendarme en retraite. militaire en retraite le capitaine Ousseynou Tall. A capitaine Ousseynou agent de police. agent de police Gassama en retraite. Avec Cheikh Gassama. surveillant en retraite. 6 et syndicat de bien sûr mi nous mairie woo. la ah Nous là beneen bi nag ma def ko seen doomu dëkk di meeru mbës di Modou Diop Génn di ingénieur di gone gone gu yaru am taalibe dëgg la ñëpp fonk ko dëgg la mu jiite liste département bi dëgg la ci wàllu ci liste suppléant yi mhm. ñu am sunu doom di ñuy wax docteur Ismaïla Diallo yeewi wàllu Sénégal fii ci ngir ngi yàlla mën naa def ñu am ñetti député kon nag ku mën a am ñetti député doo ko wecc waa ah waaw boobu baasi de. Alaaji Ndiaye. waa Alaaji Ndiaye sama waa jàngoog. yaa say nit bu ngeen ñu woote. waaw nañ puus rek ñu jàll après ñu ñëw. am lu la war ci dëkk bi. waaw. ba mu dàqal. bu ko jox sa carte bu ko sa njaboot jox sa carte. xam nga ne baykat yi bu ñu demee ba naan leen kilo gerte mille six cent. Mhm. Ablaye ah. Kébé mu tuddati sama jigéen ñi nee nañ bilaay maa la ko wax. te buñ ko defee dinañ ko te buñ ko defee. dund gi seer la Mourtala. nit bu la amaloon njëriñ da nga koy changé.